tant que être humain lañ ñëw on n'est pas venu en tan que noir en tant que blanc wala parce que euh, vidéo bi vrai c'est vrai que créer na benn tole ak benn sursaut mais ñii xamoon nañ ne lii amoon na yàgg na donc c'est juste peut-être euh, la goutte de trop man nag sama message dama koy access ci waa Union européenne ak France ak Italie parce que ñoom ñoo créer situation bi ñoom ñoo fay libi yeeg Libye Libye amul gouvernement gouvernement d'entente mu fa am parce que dafa bëri ay milices yoo xam ne mooy groupe bu nekk dafay jéem a gérer euh, territoire am parce que Libye Libye dafa rëy léegi ñu fay leen deux cent millions d'euros pour ñu wàññi immigration bi parce que France Italie ak Union européenne xam nañ ne libi ratifié wul convention sur l'immigration donc ñoom amuñu droit jàpp nit indi ko Libye ñoom ñu continuer loolu fay xaalis pour que gars yi contenir léegi gars yi mu duñu am xaalis passé léegi lu ñu def mooy bu ñu nit ñi di leen jaay wala woo seen mbokk ne boo leen joxul xaas ñu rey leen donc ñoom ñoo créé loolu bëgg bu ko africain yi gisee ñu ragal a traversé donc maa ngi demandé suñu gouvernants yi nañu bàyyi wax gouvernement Libye nañu wax ak Union européenne ñu respecter droit des hommes ñu respecter convention internationale de la migration ñu respecter noirs yi parce que lii lépp affaire faiblesse la Nkrumah waxoon na ko en 1958 ñun état africain yi buñ bëggoon a am doole wax ak ñoom parce que xarit bi daf ne. le riche ne discute pas avec le pauvre le puissant ne discute pas avec le faible quand je discute mooy du négocier avec le faible parce que boo amee doole mais doo négocier donc ñun dañu ñaaw dañu néew doole Kourouma waxoon ne bu ñu booleewul en 1958 dañ am ay euh, armée yoo xam ne ni armée yu néew doole la te bu boobaa impérialisme day day continuer di ñëw te loolu moo am alors que Afrique bu nekkoon benn danañ am au minimum 5 millions d'hommes ci armée mais ban armée moo ñuy nangoo songu amul donc tey Alpha Blondy wax na ko pour régler problème bi Union européenne moo waroon parce que bi nga amee problème mais dañoo jël CEDEAO dafay armée dem pour mu pourquoi ñu jël armée dugg ci désert bi xam nga régler le problème ils ne le pa pas et ils ne parlent tey euh, dañ ne la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde mais la France peut prendre toute la richesse de l'Afrique donc comme li ñu waxoon ci benn film film mi ngi tudd la cité de Dieu moo am favelas yi ak ñi riche mais tant que l' Afrique aura faim mais l' Europe n'aura pas de sommeil mënul nekk donc booy fii dégg naa benn responsable ci gouvernement bi yor agence xale yi naan euh, c' est parce que les jeunes n'ont pas de qualification fii ñaata nit ñoo fi jàng am bac am maîtrise am euh, licence am. master plus deux te liggéeyuñu liggéey amu fi gouvernement yi dañ ñu ngi taxé jël seen ay mbokk di leen jox xaalis walla ñu jël ñi nga xam ñu bokk si ñoom di récupérer marché di leen jox donc ñoom ñoo créé li nga xam ne moom mooy situation de extrême pauvreté boo duggee ay caaro yi ay yëmbal ay ginnaaw raay mais fi nit ñi dëkk mais mënoo nekk waxambaane am sa doole sa papa téye la yiir la ba nga màgg nga koy xool mënuloo ko jox añ mënuloo ko jox mu feebar mënuloo ko faj mais bët yi lay xoolee mais nga dem dee si wala nga du nga dee si géej bi moo ko gën foofu la jeunes yi toll je ne dirais pas à le monde de migrer man personnellement am naa ay expérience yoo xam ne nii liggéeyal naa gouvernement bi ay liggéey yoo xam ne nii un fay ñu ma ko gouvernement yi ñu nekk ci présidence fekk nañ ñu am liggéey ci benn cérémonie de de de de bu Macky Sall amoon mu waroon a euh, tijji benn école mais ñu nekk présidence ñoo foqati liggéey boobu si ñun donc ñun léegi nu ñuy def bu ñu amatul liggéey mais dañuy dem donc situation bi gouvernants yi nekk fii ñoo ko créé ak ñi nga xam ne mooy Union européenne et fois de plus gouvernement bi nañu wax ak Union européenne parce que boobu ba léegi ñu wax ak Libye te Libye amul gouvernement.